wextanu dee nee ñu bi nga xamee ne yonent yàlla isa alayhi salaatu wasalaam daf daan dekkal ñu de am na jëm ju ko mas ne ñu ngay dekkal day ba ñu deewee dafa yàggul waaye moo woon la bàmmeel bu ma xam boo xam ne doomu yonent yàlla nooxin la woon ni ma ko tekkalee nga dekkal ko ba mu ko dekkalee ba mu dundee ba mu jógee waaja ba muy dee xale la woon waaye bu mu dekkee bi mu jàlloo moom dafa bee jaaw mu ne ko waaye lobbe jaaloo mu ne ko dama bu ma déggee sa woote bi dama tiit ndax defe ne saa taxaw mu ne ko yow de xanaa yàgg fi mu ne ko man de nangami junni at am naa ko fi mu ne ko na deemel mu ne ko seedeel na ba ma fi tëddee ba tey jii de waxtanu dee dañagul ci man waxtanu dee woowu raglug malaayika yooyu ñaawaayu jëf yi doomu adama ci jëf yi nga xam ne jëf yi may la wala jëf ji rafetul la mooy gën a ñaaw melaw malaayika woowu ñetti mbugal yoy nga xamne moy gatt lu doom aadama ci waxtu rocc ci roo te duggagul ci bammel doyna di xalaat fu nit ki tollu te fi ci aduna kat la nit ki di top tolli ko musal ci yooyu le ndax jëf yu rafet ya bu ko waji de gis moy dak aljana day yakam ci sax roo gi baña genn ndax mu baña tagok tàggoog jëf yooyu muy jakar lol ndax rafetay bi ñu rafet ak xet xet yu neex yu mu xet yu xeyñ ak bànneex bi ak seddaay bi muy sedd te maram woowu dañ ngir xet gi nga xam ne rek xeeñ na ko ci xetu jëfam yu rafet yooyu mu jëfoon xam ne diggante boobu yenn secret ngi fi yoo xam ne kurub suñu borom xamu ko jaam bi ci jaar sax du ko mën a misaalati suñu borom bari naa ay secret yu nëbbu yoo xam ne def na ko ci biir jaam ñi te fu ñu toll ñu ngi rombante ñoom yi ci des nekk ci seen biir ndax xolu doomu aadama téré ngi ci bo xamné limu jëf lepp bind nañ ko ca waaye xijaab maanaam kiiraay yi ko yir taxna duko mëna jang bu keroogee bañ na fa kashafna an ka xitaaka fa basaru al yama hadidun bu keroogee bis bobé la jallo téré bi ndax kiiraay yi nga xamné moko yir ba du gis secret yoyu moy attache yi ko ak suuf yi ko ak aduna ndax aduna madda la manam matière matériel nak ak esprit dañu féwo manam li wax antagoniste lañu ndax ro ci bopam ak jëmm ñaar ñu féewoo lañu fekk na waxtu bi daf ko dul mat waaye diggante li nga xam ne moo leen diggale mooy ar ruuxul xayawaan yi li ñuy wax jismun latifun yaxya bihi al xayawaanu moo di suufal vital vapeur bu woyof boobu nga xam ne ci finesam mën naa am rapport ak dëgg-dëggi ruu nga xam ne mooy esprit te woyof woyof boobu mu woyof itam teewul am na tuuti ci matériel ba tax na mën na koo jokkaleeg jëmm mi nga xam ne matière la nga xam ne tax na ruu ak jëmm mën a diggaale ci waasitaam maanaam ci moyen wu euh, ruu googu nga xam ne mooy ruu dundal nga lépp luy dund am na ko waaye ma nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bokk malakoot mooy royaume spirituel maanaam nguuru suñu borom nguur gi nga xam ne loo mën a làmb daj ko wala nga mën ko xool gis ko bokkul ak loolu nga xam ne mooy secret yeeg mbóot yi nga xam ne ma nga fa suñu borom roo ca loola la jóge ñu ngi ko bind ci ni ñu bindee malaaka nga xam ne bokk na ci meloom xam te du fàtte man te du tële teewandoo fu yaat fu bari bokk na ci ay meloom yoo xam ne ñi ko xam sañu ñu ko wax ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam suñu borom mayu ko woon mu waxtaane ruu bi ko ko yahud yi dee laaj ruu moomu nag dafa xamoon boromam bëgg boromam namm ci boromam ba ko suñu borom bindee te tàbbale bu ko ci yaram mooy yow ma alastu bi rabbikum ba mu leen dajalee ñoom ruu yëpp ne leen ndax duma seen borom ñoom ñëpp gannaaw ruu dafa xam boromam ñoom ñëpp ne ko ah, kay bala yaay suñu borom ca gannaaw bu Muhammad sallallahu alayhi wasallam njëkkee wuyu jaam ñëpp wuyu topp ci bu gannaawam yéefar yi wuyu te ñu ko bañ képp koo xam ne boo fi ñëwee da nga gëm wuyu ci sa coobare ak bànneex ba mu ne ñii day way fen li ñu wax ne bale ñii day way dëggal lañu waaye danaa leen nattu indi leen ci àdduna fabru dugal ko ci yaram mu mel ne ku ñu tàbbal ci kaso boo xam ne amul bunt amul palanteer bu jant fenkee doo gis leer gi du mën a agsi bu sooyee doo ko xam ruu mel noonu nag di ko tumuranke ci biir yaram liy dundal yaram di bànneexu yaram mooy naqaram mooy tawatam nga xam ne ruu kon bu mu duggee ci biir yaram dafa tawat kon doomu aadama yëpp ci kaw suuf di ay malade adduna di hôpital yonent yi ñëw di médecins yi nga xam ne ñu war a faj jaam ñi dal di indi cérémonial yi nga xam ne moom la jaam ñi war a jëfandikoo muy seeni i ordonnance faj leen ba mu roo lan moo di yërëm mooy mu delluwaat ci meloo melowoon ci cosaan bu ko defee bu sellee ba nga xam ne amul benn tâche amul benn gàkk mu mën a dellu ci boromam mën a bànneexu ci leeri boromam mooy ajjanaam mën a dugg ajjana bi fekkee ne jaam bi nag mooy na mooy yu bari ci àdduna waxtu moyee muy benn gàkk gi mën naa dem ba lëndëm kër wuus waxtu woo xamee nag nit ki mu ngi dimbali ruuxam détriment de son corps maanaam daal mu ngi dimbali roo gi ci li nga xam ne day euh, not day naqaral jëmm ji mooy nit ki ne néewal lekkam ba jëmmam woyof deretam woyof xolam mën a xalaat xolam leer muy woor di faral a wéet di xool lu ko yàlla xool rek tur yàlla sax ci gémmiñam roo day gën a dund ni garab bu ñuy suuxat di gën a am kàttan di gën a rëy bu ko defee day gën a jege melowam melowoon ba mu daan ñëw ci àdduna roo yi rek bi ñëwee ci àdduna bi ñu duggee ci yaram dañoo tawat yonent yi rek ñoo des ci seen wér ga am na ci itam yeneen roo yoo xam ne tawat ñu waaye tawat ja demewul noonu ñooñ ñooy awliyaaw yi ak akabirul ulama yi ñi ci des nga xam ne ñoom la seen ruu gën a tawat ñoo gën a aajowoo xeex xeex bu metti ja jàngoro yooyu ngir mën a wér ndax nit ki waxtu woo xamee ne ruuxam dellu na ci wér ga woon moo di ak muccam bu fekkee ne mu ngi ci àdduna te demagul suñu borom dana ko muril kiiraay yi kiiraay yi nga xam ne mooy les attaches terrestres ni ki tey jëf yi nga xam ne dana ko jëfandikoo yépp ci àdduna nga xam daf koy xëccaat jëmee ci àdduna yi mooy baat yi muy dégg bëgg-bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox ñi muy diggaaleel mébét yi muy am noflaay yi muy noppalu nelaw yi lekk gi naan gi bànneexu bi muy bànneexu nga xam ne yooyu yëpp day gën a dundal yaram wi te yaram gi day gën a tëj kaso ruux gi nga xam ne lu tasawuf seen mooy ñaari an unsur yooyu ñaari jaambur yooyu te mooy yaram ak ruux bu ñu dimbalee ruux gi dana delluwaat ba nga xam ne dana jege nam meloon ba mu ñëw àdduna loolu moo tax awliyaa yi daa ñu toll si jamono boo xam ne bu ñu ñeetee di tudd yàlla tudd yàlla goo xam ne gii saxoo nañ ko génne seen xel ci àdduna déggatuñu dara dara dara lu leen mën a delloo si xëcc ci àdduna malako day ubbi ko ci seen kanam ñu janloog ruuxi yonante yi janloog malaayika yi janloog ajjana ak safara ak arasa kursi yu mën a di jàng lawxul mahfoos la nga xam ne moom la ci suñu borom def loolu mooy istiadaat bi nga xam ne jaam bi dana ko xaroo ci fóot ruuxam balay ëllëg ndax li leer moo di ne siraat dana ko jéggi siraat du dara lu dul jëfi jaam ñi ku si jëf juboon jaar ci yoon da ko jéggi jéggi gu jàppandi gu neex gu yomb gu gaaw koo xam ne sa jëf dëng na siraat lu dëng lay doon ci yow waxtu woo daanoo fekk na yaa ngi tiim safara ci safara rek ngay daanu kon bu ñu nee siraat mooy jëfi jaam ñi jëf bari na fu muy walloo doomu aadama waxoon naa fi ñuy roccee ruugi nga xam ne léegi gisatul dara ci àdduna amatul atab adduna bëtam tam yaa ngi bokkiku janloog malaayika mi ak fi mu nekk ci barsax te jëf yi di jëk diko di su dekkee ba wara jëgi sirat ñu wara pécé ay jëfëm ku ñuy wax nu mardawi abdullah ibnu mas'ud neena yaronte bi sallallahu taala wa sallam neena sun borom dana dajale jam ñi mu bindoon ñëpp ñu njëkk ba ci ñu mujj ci benn bis boo xam ne leen taxawal béréb ñoom ñëpp ñu taxaw jonn sen nagi bët yi mbokiku janloog asaman rek ñuy xaar atem sun borom bola dana wacc wacc aras jëm kursiyu ci bir ay nuur yaatu yi lendem and ak juróom-ñaar fukki junni ci ga aras ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul mom nee abdullah ibnu ci aaya joj sun borom di wax hal yanzuruna illa an yatiyahum allah fi zulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qudiya al-amr wa ila turji'u al-umur neguñu lu dul yàlla dikkal leen ci biir ay xiini miir ànd ak malaayika yi bu keroogee ñu atte jaam ñi mu ne maanaam waxtu yi suñu borom di wàcc digganteem ak mbindi fi juróom-ñaar fukki junni ci raay moo koy moo ciy dox am na kiiraay yi leer ak kiiraay yi lëndëm ak yu kiiraay yu ndox nee ndox moomu na sab sab boo xam ne xoli nit ñi day xolli ko di wadd ndax tiisaay ak xumbaay rek lu gi ak métit bi gis boobu nga xam ne doomu aadama bu séenee mbokkam daw ndax ne xëy na bokk gi ñu ci àdduna amel na ko xàq yoo xam ne bu ko gisee dana ko fayu ci moom te keroog ku nekk la nga amoon ci lu baax xeeb nga ko la nga amoon ci lu bon naw nga ko ba mu jaaxal la doo bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñuy fa bàkkaaru kenn di la jox boo alxuraan nee na boo séenee sa mbokk daw boo séenee sa ndey daw boo séenee sa baay daw boo séenee sa soxna daw boo séenee sa doom daw nee na kenn ku nekk am nga lu la doy bis boobule da ngay gis nit ñu mel ndax keroog mbugal ga rek te màndi wuñu de ne keroog bis boobu la yéefar ba naan ay nga la man ay eh, aka ma jaaroon yoon yonent bi aka neexoon diw ma bañoon koo def xarit di ànd ak mu ba mu yóbbaale ma ci bon bon yi nee keroog la tooñkat bi di mat baaraamam diwu cax ndax réccu rek te boo fekk na mu yëngu loo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñi dañuy neew de waaye wallaay bu ñu deewee daañu yeewu keroog bis bi suñu borom sampee balance yi di atte seen jëf yi keroog sëñ Tuubaa nee na wa yaqa'ul qisaasu bayna jamma wa bayna qarna ali adlin samma bu keroogee bàyyi ma bi amoon béjjën mbëkk bi amul woon bëjjën suñu borom dana àtte seen diggante dana xiyaas dana xisaas la nga xam ne loolu la ko defoon béjjën ya koy amee woon mu wekki ko saxal ki amul woon béjjën mbëkk ki amoon béjjën yi na mu ko mbëkkee woon ba noppi ñu soog leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw ndax amuñu bàkkaar ngir maandu suñu borom rek nee na keroog bis boobu day daañu xisaab doomu aadama ci lu demee ne xitmiir wala naqiir wala fatil ñooñu ngi demee ni ki boo xoolee tàndarma der wu weex wu weex woowu nekk diggante ñam wi ak xoox bi ku ko fabal nit te baalu la ko ko nga jël ko jëlal ko ko ci lu dul seddu xolam bu keroogee daañu ko xiyaas nga delloo ko ko benn ñu fab ci sa tuyaaba lu tolloog loolu jox ko wala ñu fab amuloo benn desewoo benn tuyaaba ñu fab ci bàkkaaram lu tolloog loolu teg la ko naqiir mooy saal bi bu dëgër bi ci boppam fatil mooy boo tojee saal boobu la ci biir te weex te xale yi di ko bàyyi ba mu ba noy ñi diko toj diko lek lekk doomu adama nga xamne bu deewon ci jihar sun borom dekkal ko mu delo di jihar ngir ngeureumal yalla ak noni yalla yi ba de ñu del ko dekkal ba muy ñetti yoon bu yamal xiyaamee fek amena bor buñ ko balu du dugg aljana mukk ak lolu mu def lepp te fayul bor boobule mu nekkon aduna mom keur gu romb rek la nan nañ ko def keur gu romb mom dong yu tax mucc sa alal ji amulo ci ludul dul li nga lek mu res li nga sol mu rap ak li nga li nga mel. ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dul lolu ñak nga ko keneen akoy mom kon nak dajaleel keneen dara jaru ko neena perte fofu la mëna yam mu nak gis nga kon titi bis penc ba ni mu tisse ak ni mu re nang koy delo ci sa xel di ci xalaat xalaat bu yag mu ndax ki gëna a mucc ci nit ñi ci tiit yoyu la moy ki koy gëna xalaat te di ci gën a def xelam nee na yàlla du boole mukk ñaari tiit ci jaam tiitum àdduna ak mu àllaaxira képp koo xam ne sa xol dalul ndax ragal yàlla di xalaat ëllëg yomal xiyaam suñu borom dana la def nga bokk ca ña gën a ñàkk tiit ña gën a sedd xol ña gën dal xel yàlla dina la ca boole mu ne nag ragal gi lay musal lu genn ragal lu dul ragal gi nga ragal yàlla ba mu dox sa digg ak mooy ragal gi nga ragal yàlla ba mu xiir la ci topp ko jaamu jaam ñi nag ñu wute lañu keroog bis ba li muy tiis tiis yonente bi sallallahu la hiya ahwanu ala al mumini min adaayi salaatin maktuba giñ na ci dundam ne tiiti bis penc ba jéggi siraat taxawaay bu yàgg ba balaa sañuy peesee jëf yi ak loolu lépp jam bi nga xamne ak ngeum ag na ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamne julli ñaari raka wala ñett wala ñent ko gëna a ci mom dal ñu ci sun borom boole ndax sun borom sàkk na jaam ñoo xamne seen leeru ngeum dana tax bu ñu jéggi sirat safar wiñ tim dañuy yakamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma sa leer sa leeru xar kanam ngay fay sama safara way mu ni bok na ci yi meuna dimbali nit ci àdduna ji ñu nekk delloo sa xel di xalam te xalaat tolluwaay yooyu ak jaar-jaar yi jaar-jaar yi nga xam ne yépp faaw nga jaar ci di xalaat dee di xalaat jeexu àdduna ak mu ñàkk solo te bañ a bàyyi sa xol mu lab ci àdduna ngir bari ay ak bari bëgg-bëgg